Abrazo, Fe. Lambaye mbër yi nañu dimbali ngir yàlla yére bu baax bu ñu sol ñu yàqu ko laa lay woowee waaw bi ci topp du ko wax amul benn problème parce que yow important pour Guédiawaye mm-hmm. tu fais beaucoup de choses pour Guédiawaye tu mhm. formes les jeunes de Guédiawaye mhm. kon Lamine bi rek nañ ko yemale foofu dëgg la wala Lamine yaa baax non waaw Lamine yaa baax Lamine boobu noonu affaire boobu di yéeg noonu non boobu baaxul maa ngi sant bu baax alors tey seen rak mhm. la parce que maa ko yar euh, doomu Guédiawaye première sorteem après li fi xew bi mu passé yàlla di nuyu waa Guédiawaye gi yëpp di féliciter au passage Sa Thiès ak Alioune Seye numéro 2 xam ne démb lépp liñ leen yebee woon rek def nañ ko ndax ñun géejawaay rek moo ñu ñor waaw Youssou moom combat bi wax dëgg yàlla waaw métti na méttiwul ndax. bëri na fi ñeenti combat yoo xam ne papaam ñëwul mais xëy na boobu baayam mu ngi doon dund di wax ak moom la mu doon wax ak moom ci kër ga bis mënatul rëy si moom wax dëgg yàlla bis mënatul rëy si moom. boo leen ñëwee seen yaram du daw yéen. non man aw ma ci problème ndax ngeen di départ seen yaram dawul. noo sama yaram dawul ndax baa Balla lépp na ko mos a jël teg ko sama loxo moo tax su ma ko gisee su ma ko gisul yëpp ça va mais di ko ñaanal suufu Cambérène ga mu tëdd oyof ci kawam. dama gis booy bi dafa jël poids si combat. non jëlul poids yére bi la rek. mais physique bee ëpp sax poids bi. tegale quoi ak gàllaaj yi. waaw waaw liggéey na nag liggéey nañ bu baax a baax sax. mais adversaire ngeen am de. non amul problème su arbitre. mooy bu seytaane ngeen am. seytaane la bébé Diouldé combat 40 minutes la xam te foofu lañ dul yóbbu bébé Diouldé lu mu mën. da ngeen di ñëw daf dafee. non lu mu laaj daal liggéey nañ liñ liggéey ba pare su arbitre sifflé di nga xam li ñu sundur liggéey. ok donc yow na nga def. Pape Maguette naam. ay sant bu baax kay. na nga yitte. lépp jàmm. tey doomu géejawaay waaw man sama rakk maa ko yar gunaas booy bi Youssou euh, doomu géejawaay papaam nekkoon soppe ñëpp képp ku nekkoon ci axlu làmb tey lan moo leen gën a marqué absence am marqué na waaw marqué nañu bu baax a baax Baye Palla moom tey koo xool bi si xam ne day manqué nañu ndax Baye Palla bu doon ñëw ci làmb rek dañuy gën a yokku doole wax dëgg naa bu doon ñëw si làmb gën a yokku doole tey manqué nañu bu baax booy bi loo leen conseillé premier sorteem ah, après li xew bi mu teere lañ koy wax bu mu yàqam di làmb ci dara na tee rek xalaat bëreel papam tamit. parce que muy bëreel seytaane la. waaw boo teeyul la lay nax. xam lool xam na loolu sax ñu naan dañ koy wax na tee rek loolu lañ koy wax daal mu tee. ngeen ko cons wala day gaaw parce que kii day cons. kii moom boo ko xaaree day yàgg mais Youssou moom dañuy dool ci kawam. mais doo leen naagu tamit. non lu naagu lu naagu. us doy bëre xel nekkatul xale si laaw. ay jeunes rek a nga wër. à part paa bi ko doon ñaanal sax. am ay mag ñoom la ñu fay ak ñoom bés ñooy mbëgg école ba. gars yi ñooy suñu grand ñoom ñooy seen école ba léegi. moo tax te gars yi nañ ko conseillé nañ ko tamit doful sax laa mujj dañ koo soxla. ah mais champion bii nii nii champion bii nii. ñaas lan moo tax bëreetul. ñaas kaay. ñaas kaay. nga war a ñëwaat sàngara loolu nga fekk ma koy wax. sama doomu baay la kii maa ko bëgg. dëgg la Pape Maguette tax nit ñi di bëre di la fi bàyyi man si man la woon quoi maa doon defarwaat rek. maa doon maa doon defarwaat mais léegi pare naa pour bëre. da nga feebaroon wala da nga doon defarwaat mystiquement doon defarwaat mystiquement. parce na combat yoo xam ne ñàkk naa ko fi waruma ko ñàkk gars yi dàq ñu ma bëre ëpp ñu ma doole. est-ce que gars yi lay quoi. non non non pël laa nag kenn maa mën a yàq dama doon defarwaat rek. defarwaat rek waaw defar pare pare naa parce que ñu ngi may proposé ay combat mais am na ñoo xam dama leen daanoon ñu bëgg leen joxaat moo tax jëlaatal rek combat de relance la non ku daan ay onde la fou daan daan waaw daan giri ñoom buur am na boo xam bu ñoo proposé waroo ko jël chance yàlla nga ñëwaat du mu gën a gaaw waaw amul benn problème yuusu yuusu yuusu tamit ñu ngi koy ñaanal quoi yàlla defal ko ndam waaw di gërëm tamit Lamine Golo parce que moo ñuy moo ñuy entraîné waaw koy gërëm di gërëm mbés quoi bu baax ñi ngi pare nañ le grand champion doomu géejawaay kii man moom kii man moom mën naa wax ne man sama rakk la ragalu ma ko wax fenn interview sama rakk nga maa la yar man li ma la yéene man yàlla rek moo xam man li ma la yéene booy. wallaahi barki Seydina Muhammad yàlla moo xam. sama rakk nga. dama ngay def dama ngay wax. dëgg la defalu ma la musique yóbbu ma la si sëriñ sekkuñu loolu mm-hmm. la à part làmb ji sama rakk nga dëgg la li ma la yéene yàlla rek moo xam yàlla na yàlla àggal lépp loo xam ne mbébét nga ko mais sinon tey naka bés bi waaw sant yàlla baax a baax jul sënd bi sant samay ñaari waajur di ñaar tam papa fi am tëdd mu nekk li nga gënal yàlla na la ci lu mu doon ñëwee àdduna waaw di nga ñaan ak lu boo di rasul bi yaay yëpp maa leen sant di gënal yow sama grand nga ndax danga maa yar ma judoo Baxdaat maagee du sant yàlla di ñaan yàlla nga xam ne moom moom ndam maa ngi dagaan di nga ñaan yàlla. amul pression si yow tey amul lu la manqué. non loolu mënut a ñàkk ndax nga doon gis nit gisatoo ko dina xaw a manqué tuuti mais tamit gis naa samay nit samay xarit ñoo ngi may ñoo ngi may jàppale ba am ndam. mais amul pression quoi. mais jëlee gu si pression de amagu ma si pression de. waaw mais waa ji dafay bëree bëree luy day cons. mais est-ce que dina ko bàyyi mu cons. non non kii du cons kii ma ko bàyyi mu cons kii dañuy bëre damay xeex damay bëre. parce que laaj sa gars yi nee nañu dal mooy clé wu combat nga dal est-ce que loolu mi ngi sa bopp. waaw combat bi dal laaj tey lu mu war a def incha allah rabi ñaan yàlla rek yàlla may ñu naan. jaajëf baax a baax a baax. tey fi fecc. li ngeen fi fecc affaire seytaane dëgg la. waaw noonu lay deme seex yàlla yi bu nu xewee fecc affaire seytaane fecc yëfu seytaane. xoolal ñëpp teg leen bët ngeen def lu neex di mband lu neex di jaay affaire booy Grand Dakar quoi. walaay ndeysaan di jàppale sunu doom ndey ñetti seex yi man bébé julde kii ñetti seex yaa ngi nii danoo war a fecc ba mu neex. Ousseynou ak Assane la wala. ak bébé julde. ak ñetti seex yi. wësa nee ni. as bébé julde turu mbër la yaa gën a xam mais ñetti seex yi jàppal loolu rek. mais booy bii dama forox de. lu leer laa amul su ma nee la amul saas rek amul saas. muy ba mu tawee la ñàkk saas ñun ay bawal bawal la ñu. ba mu tawee démb. ba mu tawee démb la ñàkk saas. ma ne da nga bëgg a wax yéen a taw yéen. dama ne. non non non. ay bawal bawal la ñu maanaam dañuy béyi ñun. man waalo waalo laa. waaw kay yow waalo waalo nga ñun ay bawal bawal la moom fii la dëkk. amul sens day defaruwaat parewut pour nga bëgg a dëgg dëgg ah bu ma ànd ak yow ci yoon. nga sol dal yu xat ma sol dal yëpp kan ay gën a yàkkamti olof nga fiy wax waxi olof yooyu laa lay wax Youssou Ndour dafa sol dal yu xat mi noonu wës di bu baax a baax a baax ki nee na booy bi day xaar sa seex nee na booy bi day xaar booy ban Youssou Ndour ah. non Youssou day xaar am moo tax nga ñëw mu ñëw ngeen day xaar parce que xam nga lu tax ñun dañu jóge ci daam seen daan ko jël bu rëy jël caatu yoof ñëw juum foofa. kon yoonam nekku ci. dam tey tey tey moo xew. tey Youssou day xaar tey Dame Sène. dama ne yooyu passé na. dama ne Youssou day xaar 2 millions la ñu def ci ngem. 2 millions 2 la ñu def ci ngem Youssou Ndour day xaar maa la wax lii. nee na 2 millions lañ def si ngem 2 millions. ñaari million soo day xaar. combat bi jar na 2 millions. jaral nañu 3 millions. on dirait am feneen fu mu war a dem. Youssou da tiital yéen 2 millions si Youssou Ndour. Youssou mënuñoo tiital. beneen combat la ñu war a dem bu bokkut ak Youssou Ndour. da ngeen di cons da ngeen di cons. walla dañuy dañuy cons ñun ay xale lañu. Bébé Diouldé grand Diouldé. waaw ñu ngi lay ziar grand bu baax bi. xam la moo ma gën a jaaxal si yow kii sànq daf moo doon wax Bébé Diouldé mi ngi ne ma ne ko déedéet du moom. mu wax ko ñeenti yoon ma ne ko déedéet du moom. da nga changé lekk yi dafa toj biir bi daa toj. waaw dañoo liggéey rek ak suñu kosu. beneen bébé julle laa gis man. waaw alhamdulilah beneen combat beneen victoire la ñu bëgg yàlla may ñu ndam si kaw gi suñu rek. moo waral liggéey lan moo tax nga changé physiquement lan moo tax. waaw ànd suñu kosu rek suñu grand frère nekk ñun du ñu entraîné loolu la rek. da nga wàññi lekk bi quoi. ñu ngi lekk ñu ngi naan entraînement yi demee noonu. wàññi noos bi bàyyi bañ a entraîné. ñu ngi entraîné bu baax a baax waaw ah. booy bi nee na doo cons tey comme da ngay cons fii amul cons. waaw moom baax na yàlla yàlla yàlla may dam ci kawam rek yàlla yàlla may dam ci kawam ak nu ma ko may rek baax na yàlla yàlla may dam ci kawam. nga xeex ak moom waaw. lamb bëri dóor la ñu waare mbaa ñu de bu doon bëri simple day ñëw le tax ngeen ji. yow yow da nga ñàng quoi. ñun ay Baye Fall man loolu moo ma neex si yow da nga ñàng. ay Baye Fall lañ sa booyee li ñu fecc amutu fi. waaw ñooñu samay doomu sama nit lañ ma ñoom ñoo bokk juddoondoo yarondoo ñi Grand Dakar lañ dëkk ñi Bawol lañ dëkk loolu mën a demee rek jaajëf gannaaw bi xam nga gars yi dañuy joxe wàccuwaay waaw man seen tooguwaay laa leen jox. toog leen jàpp seen ñàmbur. waay yéen ay capot ngeen. non capot bi. mais tey li ñu gis tey macha allah. Iba Mar dekki na waat. non Iba moom macha allah tey ni ko Mouhamed Diop def réussir na ko kon ñu ngi koy ñaanal rek ndam di jikko ñu ngi laan ak sama xarit baa Baba Diaw ñoo bokk ci promoteur authentique ñu ngi ñaanal waa authentique ak promoteur yëpp lu ñu sumb yàlla na ko suñu borom àggale ci kàttanu yàlla. gis waa authentique yëpp dañoo ñëw tey. authentique mu des kooku noonu genre boobu kooku may bañ a déglu xam nga tur bi moo moo foor ko te mu sant Faye tur bi moo fort moo na bëgguma ko tudd. ah kooku kilifa la Serigne Bamba Faye moo kooku mooy jëwriñu authentique. kooku du dara. <laughs> mooy jëwriñ ma nga ne la ca kaw. ay bandi bandi. <laughs> la bandi la. du dara. mi ngi ci kaw aju takk maska ñu ngi lay ziar nag. di xam ne kontaan nañ ci yéen seen liggéey rafet na màggat yéen da ngeen a suqali làmb di jëmale lamb ci kanam li ci des ko kope coppee muy Baba Diaw rek mu àggale ko. mais Jibi programme man dimanche bële passé la tikkan Ibamar. Bill Désert ak Diine bu Yoff jour boobu def naa ci keroog gis nga ne stade bi mel macha allah maa ngi at di lijjanti benn combat bu mag bopp. bu sottee rek incha allah ci kàttanu yàlla dinañ ci waxtaan. maa ngi koy togg ñoragul nag mais combat bu mag la incha allah. Baba mbaa yaa ngi si jàmm. waaw ah, maa ngi sant bu baax. na nga yitte. alhamdulilah. Ah, baax. waaw baaba baaba lan lay togg instant yi nga toogee jàpp sa self lan ngay togg. non instant maa xalaat le 10 juillet bi. caatu yaax Zal Bawol. Amad Da ba fii la amee Iba Mal Diop. waaw xam nga suñu foofu tamit dañuy dem la 15 août. soq kii safula double moteur coince le 15 août la quoi. double moteur. coince. Double Moteur ak kan. Quench. non non d'accord mu. Baba yow d'accord ma de. non combat boobu noonu kii la bopp bomb la. mais noonu la. Double Moteur Quench. waaw loolu arène nationale. waaw la xaj boo ma newoon Iba Mar ma mere xaju fi foofu xaj et moom lu mu bëgg a jël ndaw bootal ko si waaw ay combat soog. Eh, Baba boo waxee combat boobu noonu <laughs> dañuy wax ne Baba Diaw dafa tardiw nekk na ci biir na boo tëggee la boobu bomb la. dëgg la dama ne la nanguwuma après may moom lu solo nit lépp loo bëgg te gëmoo ko bàyyi ko man lamb dama ko bëgg te gëm go te ñaan naa yàlla fu promoteur mag egg fa ñaan naa yàlla egg foofu te am naa ngëm-ngëm boobu. gëm-gëm la. te lépp maa koy fayte sama bopp. waaw ndax amoo sponsor. amu benn mbëb mu sa taxaw ne baaba yow na ma dërëm waaw lépp maa koy fayat sama bopp waaw ñaan yàlla rek xamas yàlla suturaal ma. lépp rek pour soutenir jeunes yi ah. waaw loolu dong la. waaw te et puis maintenant bi ñu nekk amul promoteur. wax dëgg yàlla nag maintenant ñëpp jug nañ jàppale ma wax dëgg yàlla moo aw ma si xel ñaar. yàlla la yàlla jàppale. Ah, ku baax la. Ah, Maguette baax si Thank you. xool leen mbër bi ak ay béjjënam làmb daal li mu gàddu ay béjjën la yére bi am na ay béjjën takk na ay béjjën ki mu àndal yor na ay béjjën xawma ma béjjënu la xaw ma béjjënu rab xaw ma béjjënu bëy xaw ma béjjënu kooku kooku noonu moo ànd moom ci kaw béjjën la ci suuf béjjën la ay béjjën daal la indi fexeel ba bu jam kenn yaay yaay ñëw bëre nag ak say béjjën waaw baax na ñu seetaan mbokk yi ñu ngi jëm ci beneen combat bii moom mën nañ jàppee ne grand combat la parce que mbëru grand combat moo ñëw di bëre huitième komba daa bu Texas moo nekk suñu ndeyjoor nee na ko lan la nee na ko lan la mi ngi koy jat mi ngi Sange Sange nekk Kër masaar mbooloo Sange xaw ma sang xaw ma daal ban la ci sang wala Sange sang door na droite daa daa waane nag mais daa xamee wu ma la woon nii daa da jël volume. daa da ngaa yi mais xëy na entraînement la xëy na danga doon nelaw di naan caayin di naan soow di mëq cere di naan soow mi mëq cere naan soow mi après nga taxaw yingal ko attention daa door na sange gi dem sange jël na sange jël na door na ci kaw daa jël na ko laay laa nee na runkum ndaje mbëkkante nañ ndaje tegante yaram ndaje lii mooy ñemente ñeme ko daa bal na ko xoolal mbër bi jaar na si kanamu caméra yi en direct mu jaar ci kanam loolu tamit dañ si war a assainir làmb <laughs> mbër bu ñëw bu mu neex nga jaar si kanam caméraman yi te bëree woo bëree waa woo daa bal na ko daa dafa bëgg a jàpp loxo góos si ngemb mais daa daa mbër bu waane la woon mbër bu bëri woon seytaane mais daa léegi seytaane amatu ci dara daa jàpp na ci guy saar daa tee na sange mi ngi dóor sange wala sang tey sang bi daa doon na uppercut ci suuf daa xëy na lii moo tax mu yokk volume parce que sang dafa am volume il fallait que mu travailler volume mbër des fois ci sa adversaire ngay liggéeyee. mais am na loo xam ne boo ko bàyyee bàyyi sa yoon boo yëg ñaar yëpp jàpp nañ ngemb daa jàppul dara daa jàppul dara jaa dàppul dara dafa langaamu wala man ne loxo nday joor bi laay wër loxo nday jooru daa laay wër ana loxo bi ana loxo nday jooru daa fu mu jàpp wala dafa jafandu daa wàcc na sange wàcc na ndeysaan ñaar ñi jar nañ ku ne 5 millions barke yu may baaba ku nekk jar nga 5 millions daa loxo baa ngi ci kaw waaw daa dafa jàpp ci téere loxo ndeyjoor bi daa wala waay waay waay wala ma loxo daa waaw daa jàpp na daa roof na ci téere la roof ñoom ñaar ku nekk benn nga am Eh, eh, sange jàpp na ñaar ah sange benn la am daa dafa jàpp loxo ndeyjoor bi bëggul mu jàpp ñaar ñaari yi baaxul waxoon naa la ko waaw ñaar baaxul daa tël na ko tuur na ko bañ na daa e mooy yéen boo ko de tee ma la fekkee foofu ci biir géew bi mooy yéen du yoonu bëre bi non non non non du yoonu gi xool tubaab bi Ablaye tubaab bi nee na day aw tubaab bi nee na day woy ci géwél yi yow lu sa yoon yow tey ngaa dem France wala Belgique wala Canada nga def leneen nga woy rock rock and roll mbaa musique douce ay slow xool ko xool ko kii lu si yoonam ah àdduna nag tukki na nag man daa maa ngi door a gëm ne àdduna tukki na Ablaye xool leen ko rek nee na day aw xool ko nee na day wéy de <laughs> may ma aw bi rek Ablaye bon xool ko. ak sikkimam ak karawam xola aw bi may leen ko aw bi xola nee na day aw waa kii lu siyoonam laay laay la la àdduna tukki na e eh, kii moo seydaane kii ak ay rassam mais tubaab bi du neen de Ablaye tubaab bi du neen de kii am na fu mu jugee kii non du neen àdduna tukki Père Ibou yàgg na waaye neex na Père Ndiokhor yàgg na yàgg na waaye neex na cuq na ndeysaan daa ak sange ku nekk jàpp nga ngemb sange loxo gauche si téere yi nekk ci dënn bi la jàpp daa mi ngi bëgg a génne beneen loxo bi daa loxo ndeyjoor jël loxo gauche bi kor ko sange jël bopp bi teg ko ci épaule bi waaw daa ilaha illallah daaw ngi door upper gi daa bëgg mu siggi waaw parce que fi mu teg bopp bi baaxul pour daa daa du liggéey lu mu tànte du ko réussir il faut bopp bi génn sànq ba tey nii la def jël na bopp bi tegaat na ko ci put bi bu ko tegee ci put bi léegi suufu menton bi léegi daa du mën a def dara bu sigee du baax ci moom bu jéemee dara dañ koy roonu dañ koy suufu bëtt ko baaxul il faut bopp bi génn daa mën na xeex mais xeex bi du wóor daa jàpp na Senghor mi ngi takk mi ngi summi waaji daa mi ngi summi sange summi na ay téere yu bëri xoolal da bëgg a dagg jàpp na foofu jàpp na foofu jàpp na ci téere bi mu takk ci ndigg bi xaw ma fas la xaw ma ay buum la mais boobu xanaa mooy tax du daanu sange jàpp na daa jàpp na placage déedéet tuur na ko bañ na laa ilaaha illallaah lan laal li lan laal li kulal sa moroom laal li waaw waaw kulal sa moroom laal li ay ndaanaan lañu non ñoom ñaar jar nañu ku nekk 10 millions léegi léegi yokku naa léegi miis bi day gën a yokk daa bu Texas moo ñu wan kanam sange boo ñu wan ginnaaw Kër masaar mbooloo jiidal Kiwi Sarr ngeen boo ngeen lu daanaan bi fi mu deg bopp bi moo tax daa pour mu liggéey day metti il faut nga kor ko siggi dóor ko uppercut est-ce loolu dina wóor ci yow xaw ma mais il faut mu risquer dara sange teg na ko bopp bi ci put tere ko bëree arbitre àtte na léegi jar na 10 millions dëgg yàlla ay jàmbaar lañu bëre nañu fulla fit jom fulla fayda njàmbaar kenn du yéen on doit vous féliciter on doit vous récompenser vous vous vous récompenser vous méritez de lutteurs daa mi ngi dóor daa dóor ci bopp ah, ah daa daa mi ngi dóor ci ker nopp bi ci ker nopp bi foofu war na tàng jër boobu war na dàng jër ci ker nopp bi la koy dóor day dàng waa ji nee na ko dóoraatal ma ngay dóor daa bëreel ngemb laa ngi tas dama yàlla baal dama yàlla baal ngemb bi tas na ah non yoon la non je suis d'accord am na yu ma d'accord am na yu ma d'accordul daa jël na ndam li mais lii la bëggoon arbitre xam na ne combat bi du jeexee ci sit il faut mu jeexale ko par avertissement am kenn yóbbu ndam arbitre moo la ko gën a xam mais ñaar ñi mérité nañ ñu jàppale leen ñaar ñi mérité leen ñu ne leen waaw góor parce que ay jàmbaar lañ ay mbër lañ ay mbër lañ kii moom mooy dama dugg sama ñaari doomu mbër ñaari doomu mbër Boy Melax moom lañ njëkk a avertir moom mooy doomu Mohamed Ali l'ancien champion de l'écurie Waalo mi ngi dajeek Ndiaga Thiam Ndiaga Thiam moom mooy doom Pape Poson nekk Pikine mbooloo moo oh, moo daan na ko laa ilaaha illallaah wuy sama wuy yaay yooy wuy yaay yooy wuy gaaw ak gaaw Ndiaga Thiam daan na waaye booy melax doomu Pape Diop Boston daan na ko booy boobu boobu ay waay Pikine toj na ay waay Pikine toj na booy doomu mbër bi jommi na waa rar rar rar rar wii pip pip wii pip pip pip kookooy doomu Pape Diop Boston ay waay waay père kontaan na waay père Boston booy bi jommi na booy bi jommi na ay waay booy melax dafa jommi doomu Mohamed Ali jommi na Lac de Guiers 2 jombi na Alioune Seye numéro 2 jombi na Rone jombi na waa Géejawaay jombi nañu <laughs> astafurlaa moo diggee ñaari téeméer muy Gana Kebe bu baax mi tey ku ne xam na ne stade accélération laay laay la laa day niin day niin day niin am diw na ko soow mi léegi da ngay sotti ndox Bébé mi ngi jàpp selfam Boy Grand Dakar mi ngi jàpp kalmam Bébé ngi noonu pare na Bébé Diouldé nee na pare na bu yàgg pare na bu yàgg sur le plan mystique nee na pare na perkal bu takk deret perkaal bi y a yenu na daal yenu na daal Bébé Diouldé génn na géew bi dana ko dawal wër ko laa ilaaha illallaah danañ xeex nag deret yaa di sang perkaal bi dafa am sang nay làmb cey làmb cey làmb mais tey Youssou Ndour andi na mystique de tey Youssou Ndour andi na mystique de baax na combat de la soirée Bébé Diouldé école de lutte Cheikh Mbaba jugee Grand Dakar ñaari tali benn tali tamit ci la bokk Youssou Ndour à droite doomu père Balla Gaye yàlla na ko yàlla yërëm xale ko àjjana moo féete à droite école de lutte Balla Gaye ndeysaan arbitre bi laaj na assistant yi ba xam pare nañu ñaari mbër yi Bébé Diouldé mi ngi jat mi ngi ñaan arbitre mi ngi bébé ñaanal grand julde ñaanal Youssou Ndour nee na pare na jóge Géejawaay ndeysaan école de lutte Cheikh Mbaba l'ancien champion de l'arène face à un autre jeune de l'école de lutte Balla l'ancien champion yàlla ko yàlla yërëm première sortie bu Youssou Ndour mu tuddee boppam le leader du Super Étoile tey dafa indi mystique nag Youssou Ndour tey dafa indi mystique Bébé Diouldé pied gauche Youssou Ndour ku ne gar normal ku ñu dóor nag gisuma la ku jël ku gisuma la mbaaw Bébé Diouldé wan ginnaaw ndeysaan Youssou Ndour moo ñu wan kanam ndeysaan démb géeje waaye am na ñaari ndam Sa Thiès daan Alioune Seye 2 daan mu des tey Youssou Ndour ndeysaan loolu stress la loolu sas bu rëy la sas bu rëy la troisième sortie ce week-end pour Guédiawaye après deux victoires attention riposte attention dóor mu daan waa eh Youssou Ndour xoolal li ngay dem aha combat bi nag mi ngi door a commencé Bébé woon na ko ci xeex. est-ce que xeex boobu noonu Bébé de bëgg na ko mais xeex dafa war a jaar yoon ak les projecteurs dañ si war a bàyyi xel la pression du côté de Youssou Ndour c'est sa première sortie après le décès de son papa yàlla na ko yàlla yërëm repose en paix Père Balla Gaye après deux victoires du côté de Guédiawaye c'était Sathiès et Aliou Seye numéro 2. Aujourd'hui, c'est le troisième combat de Guédiawaye pour ce week-end. Le 26 et le 27 Youssou Ndour dem na jëli ko jàppante na ak moom Youssou Ndour jàppante bi la bëgg jàpp na ko ku ne am na ngemb Youssou Ndour bébé Diouldé bébé Diouldé rasu na en ngemb rouge taf na ko wéyale na ko ah Youssou Ndour taf na ko wéyale waaye bébé Diouldé bañ na attention. Youssou Ndour qui va imposer sa force Youssou Ndour qui va imposer sa masse mais ndeysaan Bébé Diouldé dama gisee dafa toj gën a antene physique ak endurance loolu laa gën a gis ci moom mais Youssou booy xool dafa yokk volume tuuti dafa yokk volume door na door na attention tël laay lay la laa mbirub jinne ay waay mbirub jinne laa gis un Youssou Ndour plus un bébé Diouldé ça fait deux lutteurs et qui caxabal ku ne tànte na ko si ñoom ñaar ku ne tànte na galgal wala caxabal ku ne tànte na ko ay waay tey sama put baa ngi bët sama put baa ngi xar oh loo ko def rek da gaañ waaye nag man est-ce que jëmu mag man est-ce que attention plaqué na ko. Youssou plaqué na ko Bébé Diouldé wéyee na ko Youssou daan na Bébé Diouldé laa ilaha illallah kel mbot waa pep pep pep victoire pour Guédiawaye troisième victoire pour Guédiawaye daf ko mbot mu samp bopp bi ci suuf la ko mbotee mbot ba ci suuf la Sa Thiès Youssou Ndour égale trois victoires pour Guédiawaye merci Ablaye merci beaucoup à toute euh, la population de Dakar <laughs> Guédiawaye am na ñetti ndam ci benn week-end e